Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer wa sallallahu taala wa sallama wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xayri xadimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi nuyu bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yi di leen ziyaare leen ndokkeel ci guddi gi ak bis bii nu jëm di màggal gi di gannaaw suba di màggalug Maam Mor Jaara borom Sam di jiital ci loolu lépp kilifa bu mag gi fi nekkal sëriñ bu mag bi di sëriñ Muntaqa ak kilifa gii fi nekkal magi mag di Serigne Abdoulaye nga xam ne tomb bi Serigne Sam doon waxtaane di xitma mënees na ko def namuuda bi mënees na ko joxe misaal te tabax bi ñu janoon di jumaa ji mën na ko firnde nga xam ne li mu am lépp mi ngi ko ci def ba mu toll fii mu toll murid yépp nag war a xam ne seen obligé la war a doon ndax mag ñi dañoo natt ne sëñ Mourou Moustapha mas naa taxaw fii janoo kër gi wana ne néegu Maam Jaara bu ràppee lépp bu yeesee lépp yees loolu nag kon mën naa jël taxawaayu jumaa ji tey li koy firndeel mooy Sëriñ Fallou ba mu noppee jumaay Tuubaa bagaase noonu la ko boobu ñëw indi tàmbali jumaay Maam Mor Jaara ji nga xam ne jamono moo dem ba laaj ñu ñu yokkal Serigne Fallou liggéeyam boobu ba tax mu àgg fii mu àgg tey kon noo ngi ñaanal Serigne Abdoulaye sunu borom dolli ko ca tawfeex moo ngi nuyu teg ci nu nuyu boobu ñuy siyaare Serigne bi ñoo ngi koy teg ci loxo Serigne Cheikh moom Serigne Ismaïl mi ngi defar jotaay bi di nuyu njabootu Cheikh Ibra nga xam ne moom la ñu tudde bi di ci jiital. xam naa sëñ Sam dana moom yoon di ci jiital ki jiite délégation bi Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue ak jëwriñam Serigne Fallou Fall ñu ngi leen di ziare bu baax di jël beneen nuyoo nag di ko jagleel njabootuk seen Mbacke Fall ndax moom mooy cër bi Cheikh Ibrahima Fall séddee séddee Mamour Diallo guddi gi danañu koy xaral di tuddee kilifa waaye am na lu ko waral am na ñett yoo xam ne moo tax ñu koy tuddee kilifa yi bu jëkk bi mooy jokkal Maam Mor ak bokkam ñi mu bokkal ñuy jokk bokk boobu bu ko defee nun njaboot gi ñu duggaale ci biir ci biir jokk bokk geeg njaboot googa jokk bokk ak bokk sëñ sëñ Tuba dafa waxoon ne bokk alali yàlla la te kenn bëggul ko sàggane sa alal moo tax léeg-léeg ñu tudde ko kilifa ngir jox ko bokk gi léeg itam ñu tudde ko kilifa ngir ngir fedd li wóllëri yeesal wóllëri wu doxoon diggante ma maam kóllëre itam day lu am ci diine Sayyiduna Abdullah ibn Omar nettali na wax ne am na bis am na bis muy dox ci mbeddi Makka yi ci yoonu Makka ànd ak ay gaay dajee ko sàmm daal di wàcc mbaar mbaam mam waroon boobu nag mbaam ñàkkewul daraja ni jox sàmm bi mu waroon kaala gi muuroo woon jël ko muur ko sàmm bi ñi mu àndaloon ne ko ñii lii ëpp na ci ñoom mu ne leen sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna abarral birri siratul waladi ahla wuddi abi dégg naa yonent bi wax ne bokk na ci yi ëpp tuyaaba wala mu ëpp tuyaaba day am rewaayu indi min inna min abad man bokk na ci yëpp tuyaaba doom ju di jokk wala rëy bàyyam sët bu ne di jokk wala rëy maam ko tuyaaba yooyu yàlla nañu fekk ci ci bis bii kon bu ko defee itam am na beneen bu ci dolli bu tay nag mooy delloo njukkal jokk bokk gaa ngi ci feddali wala rawaa ngi ci waaye dañuy delloo njukkal nag Cheikh Ibrahima ni ko sëñ Mourtada bu sa waxee léegi murid yépp ko amee njukkal murid yépp ndax ni mu def sëñ Tuubaa dafa am mag mu jege woon soxna Astu Gaawan ku ma nettali ne dafa nekkoon ku bari xorom ne dañuy wax ne maag sëñ Fallu dañoo fonk Cheikh Ibra mu ne waaye ni mu def suñu bàyyi ku ko def sa bàyyi nga fonk kon loolu wane na ne murid yépp amee nañ njukkal Cheikh Ibra ci loolu xam naa commentaire bi ci bi ñuy wax ci temps ci sëñ Sam doon wax léegi waxtaan bi am na solo lool mun naa tey sax mën na tooñee la mën naa tooñee moom ca ndax mel na ne jëfandikoo woo lool waaye waxtaan bi am na solo lool xam naa ñaar yooyu nga mujjee rek diggante ñaari kilifa yooyu kon ci ci la ñuy jëmee sunu sunu sunu commentaire donte liñ ci wax doy na sëkk Cheikh Ibrahima nag boo bu ko bu amoon ku ko réer xam mbiram dafa bari loo xam ne xay na lëmu waaye am na lu ñuy wax dalil dalil mooy ci misaal yow xëy na xamoo sëñ Saam yi xam-xamam fu mu waaye xam nga sëñ Mamour mi xam nga xam-xamam fi mu toll moom sëñ Mamour nag nga dégg ni mu waxee léegi di wane xam-xamam sëñ Saam bu kaay man ngaa sukkandikoo ca loola ba xam niveau xam-xamam sëñ loolu mooy sama sëñ Saam loolu mooy dalil kon Cheikh Ibrahima Fall bu ñuy wut dalil ci moom boo ko xamul nga nga nga ku mel ne lu mel la dalil mooy lu mel ne alxaaji Malick si lan seere woon ci sëñ Mbàkke Buso daf ne woon bu xamul bu fekkoonte ne mbirum sëñ Tuubaa dara leeru ci lu dul sëñ Mbàkke Buso ñii ne ci moom bokk ci ay murida ak nga xam ne dara rey sëñ Tuubaa mu ne ak li ma xam ci sëñ Mbàkke Buso ci xam-xamam bu bari akum xelam ak diineem akum maandoom ak laabiri bu muy laabiri diine dana doy sëkk ñu xam sëñ Tuubaa mooy kan loolu sëñ Mbàkke Buso sëñ Alxaaj Maalik Si sare woon na ko lu mel noonu nag na koo jële ci sëñ Daam bu Rahmaan Lo diggante nag Cheikh sëñ Daam ku ne xam na ni mu taxaw woon ci alxuraan di ko jàng di ko jàngale ba di ko taxawee guddi gu mu di ko def ñaar rakka ñaar rakka alxuraan jëpp sëñ Bachir dafa nattal ci téere bi na am na bis may waxtaan ak moom mu ma jéggi naa juróom-ñaar fukki at te daanaka du ma yëgub coon ci taxaw naafila alxuraan ñaar rakka mu ne mu ne ko loolu lépp nag ci karaama yi sëñ waaye tegal ko ci ne ko waaye gënumaa yéeme Cheikh Ibra Fall <laughs> gënuma ko yéeme ndax ni muy taxawee ci liggéeyal sëriñ Tuubaa liggéeyal jullit ñi ak caddo yi sotti ko ci kawam góor jigéen ñoom ñëpp muy taxaw ci tey dara lu seen yitte lu defar muy taxaw ci yéegal seen yitte jëme ko ci yàlla ak luy defar seen ku këru ëllëg mu ne gënuma yéeme ko kon nga xam ne kon Cheikh sëñ Abdourahmane Lo fa mu tolloon bu seere loolu ci Cheikh Ibrahima loolu doy na nga mën a xam ni mu toll yitteem jëpp doonoon doonoon doonoon sëriñ bi sëñ Basiru nattali na ko ci téere bi ba Serigne Touba demee ci géej gi li wane ne yitteem jëpp Serigne Touba la woon nee na dafa Seex Ibra dafa dem Ndar dafa dem Ndar ne fa li diplomatie bi sëñ lu ñu te bi fu mu ci man réew la am na at at yu bari yoo xam ne ba muy soog a dem kenn xamul fu mu ne mu ne Seex Ibra nekk Ndar di di lu ñu loolu di xamal tubaab yi dëkk dëkk mbirum sëñ Touba. ba lënt yooyu nag lënt yi tubaab yi amoon ngir jaxasekat yi tàmbalee dañ tànk-tànk bañ tàmbalee lu ñu tudd mbirum sëñ ba xam dëgg gi ba loolu moo sabab ñu dellu ko kon loolu liggéey boobu Cheikh Ibrahima liggéey na ko wanaa ne sëñ Tuubaa moo doon ci gëstu sëñ Moodu Moodu Xayri gis nga ci gànnaar wax naa ne Cheikh Ibra dafa am bi sëñ Tuubaa nekkee gànnaar maanaam dafa am tubaab boo xam ne dafa am lu mu soxla woon Cheikh Ibra diggaale ak moom bu ko ci jàppalee ñu dellu si Serigne Touba ci réew mi ba loolu amee nee ci lañ ko jox nee na këyit wa wañ wane ne sëñ bi mën naa dellu si ci réew mi Cheikh Ibrahima ko yóbbu Gambie nga xam loolu lépp di ay taxawaayam yoo xam ne war nañ koy bàyyi xel bu baax kon daal loolu loolu loolu mënees na ko ci dëkk mu doonoon koo xam ne itam nag liy wane digganteem ak Mame Mor bokk na ca nga xam ne boroomum xel la woon ne ko sëñ sa waxee léegi ci xasida si moo lay wasa boobu xat bàyyi as cheikh xidman xaadiman fatilan cheikh Ibra ku amoonum xel la li koy misaal mooy ba muy wër sëñ Tuubaa boobu da doon wër ku ko génn ci lëndam yóbbu ko ci leer ku mën na ragam dëgg li feeñ ci moom da doon wër boo demee ci ci ci ci nattali taarix yi da gis ne jëkkeewut ci sëriñ bi am naa yeneen barab mu doon jaar lu ñutu sëñ Tuubaa waaye fépp fu mu jaar am na foo xam ne ba mu fa jaaree dafa gis ne kii xam-xamu kese la waaye mandargam dëkk mi muy wër nekkul ci moom moo tax sëñ Moussa Ka bi ko nattalee benn sëriñ dëkk sàngam ci njàng lay xamee pexe mu bàyyi ko fa dem ba ni mu ni mu dajeeg sëriñ Tuubaa Mbàkke Kajoor loolu wane am xelam am xelam mu rëy ak xam bu mu xam la muy def loolu nag boo ci sukkandikoo fii mu tegoon Maam Mor Jaara gis nga sëñ sëñ Maam Ndaw mee ci plateau bi keroog wax na fa ne ci gëstoom xamul genn kilifa ci yoon bi ku Cheikh Ibrahima tudde doom ku dul Mame Mor loolu kon war na ne ne am na lu mu lu mu xamoon ci moom ci loolu mu xam ci Sëriñ Tuubaa diggante Sëriñ Tuubaa ak sëriñ bu mag bi Cheikhul Khadim dafa am mbóot mu ci nekk moo xam ne ñu bari xamuñ ko waaye mag ñi daanañ ko junj mag ñi daanañ natt ne sëñ sëñ Mourou Moustapha am na bis kilifa boo xam ne dafa am ku mu amee woon ci njabootu Mamour Diarra diggante ba mu dem ba mel ne lu am ay rëq-rëq sëñ Mourou Moustapha nag xamal ko ne ko gis naa ci gaal yi sëñ Touba yi gis naa ci fu sëñ Touba bind wax ni danañ dem ba jamono ak foo xam ne fu sama dara nekk dara yi sëñ Mor Diarra ne fa dara sëñ Mor Diarra nekku fa loola dana fa toxoo du fa dellusi nga xam ne kooku loolu mu indi mu mu tëjewaat kooka mu sax ci njabootam loolu sëñ Tuubaa sëñ Mourou Moustapha mag ñi dana ñattali ne moo ko moo ko wax ba tey ci xam gi Cheikh Ibra xamoon Maam Mor teeloon na koo xam bi ñuy dëkk Mbàkke gis ngeen coow li bari na ni ñu xatale woon sëñ tubaa Mbàkke rek da ngeen koy dégg lu bari Cheikh Ibra it booba am na ñoo xam ne sonal na leen ndax ni muy imposé ñu warmal sëñ Tuubaa mujj na jàkk ci sax kenn xajawtu feeg moom Cheikh Ibra waaye am na mu nettali ne Cheikh Ibrahima mujj na jàkka ji mel num sëñ Tuubaa sëñ Mor Jaara dama lay fekk jàkka ji kon ku ko ku ko ku ko ku ko bàyyi woon xel sirru boobu nekk diggante sëñ Tuubaa Maam Mor Jaara dégg naa sañ Moustapha Bito ci kàddoom mu ne sëñ lu mas na ko wóor mas naa ñëw fii ne ko bis sàngam na nga ñëw na nga ma fekk Tuubaa sëñ Moustapha Bito mag la woon boroom xam-xam la woon imaam la woon nee na ba mu demee fekk ko ci néeg ba ci biir kër fekk am na ma neen mbokk mu ne di ko wan ne lii nga nekk yow waroo ci nekk ma neen bokk daal ne ko yéen waa kër Serigne Mor maanaam bëgguma ngeen nekk ci dara lu ngeen mu ta nekk bëgg ko ci kenn waaye ñoo ci raw ne ko ndax yoonu murit bi ko sëñ Tuubaa wootee leer ba yoon nga xam fa mu xam fa mu jëm ne ko danaa moo ngi ca biir danaa moo ma ngi biir nekk Serigne Mor Diarra non nee na loolu sëñ Fallou moo ko ko nettali boppam moo ko nettali waat ma dégg yoonu Jolof woowu ñuy nettali lu bari te ay njuumte di ci am lu bari am na ñuy ñuy nettali nit ñi léegi da cee bari ñoo xam ne li ñuy nettali du tege ci xam-xam du tege ci fu dëgër du tege itam ci lu leer xëy na wax waxee xew rek ñuy wax waaye am na ca lu sëñ Moustapha bi mu nettali ma dégg mu ne sa Abdou Latif moom Mamour Diarra moo ko ko nettali ne sëñ Bachir ko ko nettali ne ko am na bis bi Maam Mor Jaara demee Jolof xëy dem kenn xamul fu mu nekk sëñ bi yebal ay ndaw nee ko sax sëñ Abdou Latif ne woon na ko sëñ Bachir nee na ko wax na ko turu turu ña ña fekke la nee na yebal ay ndaw ñu ko wër ba fekk ko ca dàggati mu jàng alquran toll ci qaala qad ujibat da'watukumaa fastaqimaa nee na Maam Mor Jaara ne leen aaya ji ba ma ko sama borom di xamal booba gone gu ndaw laa toll ci war a fasu gattax booba dalagul jàng man la sëñ Tuubaa loolu la bëggoon ñu xam ko ci moom nga xam ne loolu it lam cay feeñ mooy aaya jooju sunu borom da ko doon da ci doon wax sayyiduna Muusa ak sayyiduna Haaruun naan leen sunu borom nangu na seenu ñaan na ngeen jaar ca yoon mu mel ne seen diggante ñoom ñaar la sëñ Tuubaa di ci loolu ba mu jógee Jolof day da nga dégg am ñu naan def na ko na nga guddal saw yoon lay da nga dégg ñu koy nettali ne dafa bëgg a wane ne bu guddaleew yoonam ay taalibam dana bari ci yoon bi demeewul noonu la tax mu ne ko woon guddalal saw yoon daf ne ko dëkk boo jaar koo tase foo fanaan ku la sa yaram ñu jéggal ko moo tax na nga guddal saw yoon ndax njéggal yi bari loolu itam njuumte la yoo xam ne day feeñ rek-rek ci nettali yi te sëñ Tuubaa di yebal ay taalibe ci moom ñoo xam ne leen di tërbiye ba gërëm leen des ci mu yebal leen ci Maam Mor Jaara loolu lépp di wane mbóot mi doxoon diggante ak sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall mi ci ñoom ñoo la bokk sëñ Tuubaa yebaloon na ko ci Maam Mor Jaara mu ne fi di ko liggéeyal am na ñu ne am na fi ñett at am na ñett am na ñu ne ñetti weer waaye suñ sëñ Tuubaa yebaloon na ko fi yebaloon na fi sëriñ Mandumbe defe naa saadiq yoonu murid bu leen doon lim doo mën a mujj Cheikh Ibrahima ak sëñ Mandumbe sëñ Tuubaa yebaloon na ko fi sëñ Mandumbe moom boo demee ci marché yëpp sëñ Moussa ba mu ko defal indi na ko fa mu leer nañ ñi wane ne wax ne sëriñ bi dal di koy yebal te naa ko bul jooyoog digal sëriñ Mamar Jaara jubal sa mbir te mbir ma sotti la ne ko teg ca nag am na fa fukki at yu mat sëñ Mandumbe am ci sëñ Mor Jaara fukki at ne sëriñ bi ne def na fa luñ mun la xiyaas ku ko xiyaas faf ne xalaas ñu fab ko teg ko ci palaas maanaam sëriñ Tuubaa ak sëriñ Mor jël sëñ Mandumbe ñu fab ko teg ko ci palaas bopp ker kereen ya kal na noo ko sëñ Moussa Ka nettali mu ne dàmbe ne seen yaari ngërëm sëñ Tuubaa liggéey loo na ko ba ngërëm ko des ci mu yebal ko ci Mamour Diarra mu liggéey ko am ngërëm moo tax mën a daan benn seen ñaari ngërëm kon am na secret boo xam ne doxoon na diggante sëñ Touba ak ak sëriñ Mor Diarra te yebal googu mu leen daa yebal ci moom ngir ñu jàppale ko ci kër gi taxutoon Serigne Mor Diarra soxla wutoon ndimbalul zahir ndax ab liggéeykat la woon dégg nga ca waaye sëñ Moussa ko mu ne sañc na Mbàkke sañ sañc saam toj masare amoon nay daara ci ñi ëppoon suuf ci réew mi la bokk di liggéey boo gisee ñi koy marsiyaal bi bokk na ci bi sëñ baara bi sëñ Sam tudd léegi bu marché yëpp ak tabam dajay feeñ defe naa ku ku ku néew doole nag mënut a dimbali kenn mënut a tabee te ñi ko marsiyaal ñëpp koo ci dellu ci marché am rek da nga gis ne sëñ Mor Diarra ku tabe la woon kon loolu itam wax na ne kon am na sirru bu tax sëñ Touba daa ko yebal ci ñoom te ñim daa yebal ci ñoom it ci moom it da leen di taal da leen di ko ku mel ne Cheikh Ibrahima sëñ Modou Mbaye loolu nañ ci misaal sëñ Mor Ndiaye tàggaar ba mu ko yebal ci moom daf ne ko sëñ Touba daf ne ko kooku ma lay yebal nag ku ma wóolowul ni ma wóoloo sama bopp doyoo ma ci liggéeyal ko noonu la ko waxoon kon sëñ Modou Mbaye Cheikh Ibrahima nga mën a xam loolu sëñ Mor Diarra nag ku ko umpulee am solo rek mooy xam ko am dara ëpp ko ñaar yi nga xam ne sëñ Touba ne ci nga mooy xam-xam ak diine ñaar yooyu de moom waa jamonoom waa jamonoom ñëpp seera nañ ne kenn moo ci jiitu ñëpp daanaka ñu ko fekkee jamonoom bokk na ca sëriñ sëriñ sëriñ Moodu Bousso mi sëñ Samba léegi moom sëñ moom sëñ Bàkki Bousso ci mag ñi la bokkoon ci ñi àndoon ak sëñ Tuubaa la bokkoon ba koy marsiyaal marsiya bu waxin neex la ko wax di wane jaana mutaassifan yuxaatibuna wa damu fawqa taraibi mu ne tàggakat bu bari gaaf ñëw na fi di wax ak ñun waaye rangoñ yaa ngay daanu ci kaw dënn ba fa qultu lahu maa baalu dam'ika yarhami fa qaala faqadna al aana xibra al makati nee na ma ne ko lu xew sa rangoñ yi sotti ko mu ne ma dañoo ñàkkale ki nga xam ne mooy fóorib daara yi daara yëpp mooy seen fóori moo ci ab xam la xam-xama tolloon mu ne muhammada jaaral murtada man bi sarqihi aqarra dawal qurba maan kal ajanibi maam Mor Jaara mi nga xam ne ak jiitoom bokk yi nangu nañ ko jàmbur yi nangu ko sëñ Modou Bousso moom sëñ Mbacke Bousso moom wax loolu bu dee ci wàllu diineem ragal yàllaam ak jaamu am na lu sëñ sam wax léegi dafa naa am murit moom doomi sëñ Tuubaa doy na ko wéeruwaay ay waxam mën na caa sukkandiku te doomi sëñ Tuubaa yi am na naa ci tudd ñaar ñoo xam ne saxal nañu diineem ak jaamu yàlla sëñ Bachir wax na ci téeréb Minanul Baqil Qadim bi ne sëriñ Mor Jaara ab dogam guddi gu ne téeméer rakka la woon lay naa fi damay wax ne téeméer rakka nag boo koy dégg ci ci ci ci baat bi mën naa dem ba nuru lu lu tuuti ngir tàmm gi ñu ko tàmm dégg waaye bu ñu demloo ci weeru koor yi naafile yi ñu ciy naafila ñu bari naafile seen son booy la ñuy naafila waaye li ngay dégg ci weer yëpp mooy naafile gi yomb na tey mbaa gudd na te gëcë gën a gudd ëppul fukki ëppul fukki rakk ak ñaar boo xiyaasee la nga xam ne téeméer rakk kon bu baree bari la sëñ Basiru nee na moo doon ak dogam guddi gune kon mm, farata yi moom da koo jëlale bu dee ba tey sëñ Baara sëñ sëñ Sam tudd na ko léegi boo delloo ci marché yëpp sëñ Baara moom dafa moom sëñ bu mag bi mm, maraas yi yëpp am na solo waaye bu sëñ Baara moom dafa dafa dafa dafa kawe dafa ne faqadnaahu maaman jaamian lilfadaili lilfadaili taqiyan naqiyan taarikan liradaili liradaili mu ne ñàkk nañu jàmbaar koo xam ne jikko yu baax yépp dajale woon ko ku ragal yàlla ku set wicc ci mboolem jikko yu suuf yi mu ne muhammada jaara cheikha man lam yajid lahu shabihalullahi fi nada kullu sadir mam mor jaara sëriñ bi nga xam ne ñii sàkku ndimbal moom duñ ko yamal ak kenn ci tabe mooy li ma doon wax léegi loolu sëñ Baara moom sëñ Tuba moo ko wax mu ne fa qalbi lam yafrax la amri baadahu kadalika kaana al qalbu min kulli aqli mu ne ñàkk ñàkk ngir ñàkk Mamour Diarra yëg naa ci sama xol loo xam ne duutu duutu tàggu ma naka noonu képp kuy boroomu xel na ci xolam loolu mu ne tajarrada li taati fi dëhri kullihi ala allahi ma in aaqahu min chawaari dafa jóg rek wan gannaaw lépp li sëñ Muntaxa doon wax ci kore yi naan futti futtiku futti bu mu àdduna mu ne sëñ Mor ja dafa futti ko rek jëm ci borom dara mosu ko mën a gàllankoor mu ne yabiitu yusalli muy bay sëñ sa wax léegi summa yusbihu saa'iman wa maa yajiduhu illaa ka amtaari wabili day bu guddee day fanaanee julli bu xëyee yendoo koor mu ne ak tabam nag waa wuy sotti rek nga ko mën a nga ko mën a nga ko a méngale loolu sëñ Baara moom sëñ Tuubaa moo ko seere naa doomi sëñ Tuubaa moom doy na doy na wéeruwaay ci ci ab murit sëñ tubaa nag digganteem ak sëriñ Tuubaa nag moom moom yoonu kenn nekku ci ndax ki gën a gàttu xam-xam li mu mën a xam mooy yàlla leen boole leen bokk yàlla nag moo defit Mamoor Jaara mag Sëñ Tuubaa loolu xikma ilaahiyya la la tax yàlla def ko moo ko xam loolu itam nañ koy bàyyi xel bu baax Sëñ Tuubaa fonkoon ko lool ba bi mu wàccee liggéey mu ne bu dul woon ak alquran ak sunna ak nekk gi ma fi nekk di jariñul mbindeef yi duutuma fanaan ci àdduna benn bis genn guddi boobu la doyal ci àdduna mel na ne mosu cee mosu cee ñàkk doyal waaye boobu boobu la raw jëfee moo mbiram ak mbirum Mamour Diarra mu defoon kon muy lenn am na ci bokk yi koo xam ne sëriñ bi dafa joxe woon ndigal ñu jox ko soxna nañ ko tànnal ci biir kër sëñ Tuubaa ñu tànn fa ku mat a dem kër nekk fa sëñ Tuubaa ne nañ ko seetal kër sëriñ Mor ndax sama doom ak doomam ayam moom la ko sëñ Tuubaa bi mu fi bàyyi ko ñeent ñeent ci soxna yi mu fi bàyyi boobu ñu ne Mbàkke sëñ Tuubaa dafa joxe ndigal jële leen Mbàkke indi leen jaare wutal leen fa kër di leen jox njëriñ ñuy toog noonu la noonu la noonu la defoon noonu la boole woon lépp léppi Maamoor Jaara ñuy leen loolu yi li koy firndeel mooy mag ñi toppoon sëñ Tuubaa fi ñu ko teg tuddal naa la Cheikh Ibra tuddal la sëñ Mënu Beg ñooñu waaye am na keneen sëñ Mat Lamin Jóob Dagana sëñ Moustapha Bito wala laa dégg ci kàddoom mu ne sëñ Mat Lamin Dagana mas naa jóge Njaaréem ñëw fii Mbàkke nee na moom la fi fekk këram la dal ba mu ñëwee la ko wax mooy lenn doo nga ko yëkkati mooy mooy CRS yi barab bu Mamour Dia waaye ne ko barab bi mu wàcceeb liggéey nag la bëgg a seere nee na ma ne ko dangay jàll Tuubaa xanaa mu ne ma Tuubaa taxumaa jóg lu jàll Touba fii ko tax a jóg sëñ Mat Lamin nag sëñ Mat Lamin nag bokk na ci li ñuy xam ci moom bu defee loolu nañ ci taxaw tuuti ku jege woon sëriñ Touba la sëñ Mat Lamin Jóob Dagana ku yàgg ak Serigne Touba la ca gànnaar ba Jolof ba Njaariñ bokk ñi ko gën a jege daan ko noddal ba ñu tuddee ko Aminu Sirri ki sëñ Touba wóolu ciy bóote sëñ Mat Lamin ba sëñ Touba delloo ci boromam sëñ Moodu Mustafaa bokk na ca ñam tànn ngir ñu waajal sëriñ bi sëñ Mat Lamin moomu gannaaw sëñ Tuubaa ñu def ko imaamu njaareem sëñ Mat Lamin moom moo jógee njaareem bàyyi fa barab ba sëriñ bi delloo delloo ci boromam ma nga njaareem jóge fa ñëw ñëw fii ci kër borom saam laajte barab bi mu wàccee liggéey mu dem fa taxaw fa di di ñaan nee na suba ba digg bëccëg mu soo mu ku dellu njaareem ak na mu toll ci sëñ Tuubaa loolu doy na sëkk firnde ci ci ci ci diggante Maam Mor Jaara ndax magi sëñ Tuubaa yi fañ ko teg sëriñ bi seere woon ay dara darajaam ne mu seerale woon sëriñ Touba wane ne woon sëriñ tubaab waxoon taalibe yi ne leen ba mu leen fekkee Touba ne leen kuy liggéeyal sëriñ bi danga am maanaam sëriñ bi liggéey bii ngeen koy liggéeyal négul ba maanaam liggi woowu leen ba noppi soo wuti lu mu leen fayee li mu leen fayee koo liggéey ba am ko soo ko soo ko leen a wuti leen liggéey la ko naka noonu sëriñ Mor Diarra lu mel noonu la seere woon ci sëriñ Touba moom la maanaam Serigne Touba it loolu la seere woon ci moom ne waxoon sëñ moo Ndiaye tàggaar mu mu ne ko ku ko liggéeyal ci sama ndigal yàlla dana la fay yonent bi fay la ma fay la mu fay la kon kon kon fi ñuy rek mooy fi sëñ Sam jeexale mooy laabiire bokk yeeg bokki jullit yi kilifa yi ñuy waxtaane mu baax nañ ci dolli nag di di góor-góorlu ñu nitam ba mën a mën a jaar ci seen i tànk ñoom ñëpp mën a jaar ci seen tànk loolu itam nañ koy bàyyi xel bu baax murit yi tam nun bokki taalib bi murit yi jamono yi ku ne xam na ne waxtaane sëñ Tuubaa xam ne lañ ko xewal waxtaan ak mbaaxam télé yi waxtaane biiru ndar baa ngi wel noonu lu baax la waaye nañ ciy dolli nag nañ ciy dolli di jaar fam ñu jaar moom bañ nañ ci waxtaane kese dafa am boroom xam-xam moom dëkk mu misaale ko lu am solo mu ne mi ngi mel na ñetti nit ñu jógee Dakar doon jëm Thiès ñëw ba jëm ñaaju gis télé bu jàdd xamuñu Thiès la jëm wala jëmu fa ñu taxaw nag di xaar ku leen gindi nee na am góor gu leen fa fekk nee na góor gën a góor gën a misaale Sëñ Tuubaa ne leen wan leen yoonu Cees ne leen yoon wii moo jëm Cees nee na ñoom nag jëluñu yoon waaye ñu taxaw naan góor gee baax góor gee laajee góor gee man a tegtal mu ne loolu dañoo waroon a jéem bu ñu bëggee àgg Cees dañuy waxtaane baax ak góor gi waaye nag aw yoonu Cees nag boole ci noo ngi jégalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu TV une de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer